même succès 2009 l'âme succès et euh, euh, deux ans après c'est la mère bi ouais 2011 après quelques années après pas donc Je nañ ko. Mm-hmm. dund nañ ko bu a sax. Mm-hmm. Mm-hmm. rapport nga amoon ak ñoom. non <laughs> xarit la ñu ka waaw. avec euh, bi. baa bi ñoom ñaar ñëpp dama leen jege woon parce que dama daan waxtaan ak ñoom sama yaay aussi trop sax parce que su amai mësaan a génn am ay problème am ay stressé am ay détails yu sew tànk dugg ma néegam toog parce que daf ñu tàmmaloon suma yaay daf ñu tàmmaloon ñun bu bu bu ay bu ñëpp ñëwee six heures sept heures mu def bu jamonoy sedd mu def si ànd bi xal ñëpp toog ci néegam fa lañ daan waxtaanee nag Euh, man sama petit frère sama yaay amul doom bu jigéen ay góor rek la am ak sama grand frère yi fa nekkoon fa lañ daan toogee di waxtaan donc bu ñu amee problème tant que waxuñu ko du ñu am jàmm et toujours dafa ñu doon trouver solution waay paa bi aussi sama xarit la woon trop sax waay sa yaay yaa ngi koy wax sànq moo njëkk génn àdduna bi muy bi muy génn àdduna fan la la fekk ñu la fekk euh, fii wala. non non non euh, bi muy génn àdduna deux hmm. ans après 2009. oui nous avons yóbbu hôpital. Mm-hmm. donc veille tabaski jour tabaski la sama yaay à 12h47 la veille le café affaire nous nous ñu yóbbu hôpital CTO am ñu nekk fa après nous euh, hospitalisé, hospitalisé, ñu avons dañ koy mm-hmm. les médecins ils savaient moi je ne savais pas. Après, am, euh, le lendemain, jour tabaski, ma xëy ma ak sama grand frère ñu dem hôpital pour gisco, le jour même tabaski. bon non non non. jour tabaski jour tabaski ñu le matin dañ dem hôpital pour gisco après euh, gardien bi vigile bi mu am kenn moo mën a ma insisté sama grand frère mu ne non non toi vas-y madame. ma ñëwee presque ñoom man maa ko mujjee maa leen ko mujjee gis ma ñëw ma ñëw maa ngi fekk urgence ñu defal ko casque bi masque bi donc ma ñëw ma ne ko yaay mu def ni bopp bi ma ne ko yaa ngi tane mu ne waaw après médecin bi woo ma ñëw mu ne ma dama ngeen defal ko lu mu lekk boobu mi ngi may dàq quoi. Hmm. loolu jour tabaski jour tabaski jour tabaski même. Hmm, jour ma génn. Euh, je me rappelle bi may génn ba ci digg hôpital mu mel dafa am lu ñu génne ci man xam nga ma dem kër ga am ma wax ni nañ ko defaral quelque chose médecin mi nañ ko defaral quelque chose mu sama grand frère suñu taaw moom mi ngi di château mi compagnie sucré bi mu ñëwee ñu expliqué ko nag moom mu dem moom bi mu demee fekk na mère bi presque décédé na ba ñu yóbbu ko ci morgue bi léegi mu fixe kër ga ma décroché mais buggul wax quoi. mu ne mu ne ko kan la ma ne ko man la mu ne ma ana diw fekk am na suñu beneen grand frère moo ci gën a dal suñu kër moo ci gën mu ne ana diw ma ne ko diw mi ngi nii après mu ne non non grand mu raccroché quelque temps mu woote waat mu décroché mu ne ana jeune ma ne ko jeune mi nii ma teg ma dem woo sama grand frère bi muy laaj. kooku ma top ko ma top ko après kooku gis ni man maa ngi concentré kooku ne ah ah ah ok coupé ma bàyyi ba mu jiitu ma rek ma topp ci ginnaaw mu dem ci paa bi rek mu ne paa bi say oh non c'était autre chose <laughs> parce que bon par rapport ak bu sam papa moi je savais bi ma ko fekkee hôpital dama xamoon ni day dem sam papa moom y a pas de problème quoi kii wu ma noonu quoi mais sama yaay c'était autre chose. Ça, que sa papa tu t'y attendais. voilà merci. mais bële ju non du tout parce que ñoo ko yóbbu. ma nekk fa ak moom tout ça tu vois. am am na benn instance mu jóg ci lal bi bi ma voilà bi ma ñëwee le matin dama ko fekk mu jóg mu ne day ñibi ma ne ko non calme-toi il faut nga tëdd noppalu ko comme ça ñu mën la téye affaire yooyu quoi après c'est lañ ko jël tëral ko defal ko masque bi quoi donc euh, euh, boobu moo ma gën a marqué bon bu sama papa marqué na ma d'accord parce que sama papa pas mais ben, comment, je m'y attendais pas Ça hmm. m'a... daf bi période c'était dur très dur même mon côté professionnel artistique c'était très dur Ouais, ouais. non du tout je je très dur quoi sur tous les plans franchement mais li ma gën a li ma gën a jàpp ci côté sama doom yi mu gisul moo ma gën a kii waay waay parce que dafa bëggoon suñu doom yi quoi et elle voulait que ma marie coûte que coûte toujours elle voulait hmm. mais sama doom yi des fois sax sama doom yi dañ may demander an suñu maam bu jigéen ñun xam nañ sa maam sa yaay nu mu tudd fàññ safara yooyu tu vois donc damay xool sama doom yi ma yërëm leen parce que bëggoon naa au moins mu mu fekk si xale yi quoi waaye si c'est comme ça. mu des fi nii da nga war firi kontaan n'est-ce pas du yow lañ tuddee doom ji. lu ma xam bi lépp lu fi ren lu ne ci sa quoi. tey rek laa lay kil yow.